ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma bu jumaa Tuuba biñ dénk lépp lu wër jumaa ji ak baqiya ak euh, margo bi ni nga wax sax Mariam tey ci ay vers yi onze heures ki yor margo bi jokkoo ak man dafa am lu dégg xabaar bu mu jot bàyyi ko Dakar ci suñuy ami ñoo xam ne ñu bokk liggéey bi ñu ne ñu am na ku tudd Pape Sow ñu ngi wax Alex ku faatoo dakaar dëkk Mbour dafa am turu ñaari turu yore góor jigéen ñu ngi ko jëm si Touba bi ma ko waxee ma ne ko léegi na nga informé ñin seq ak Touba ñëpp muy Daaru Salaam ngeen ne yaa Daaru Salaam ak euh, Gédé ak euh, Daaru ñu bàyyi xel loolu baax a baax maa yor ci njëwriñ gi sëñ Fallou Mbacke ma jokkoo moom wax ko xew ma toogee ba ay vers trois heures. laaj ma benn ci benn téléphone bàyyi ko ci jëwriñ yi mënuma néew bi de agsi na Touba fan yii ci tool yi ñu ngi koy waajal ma def le tout ngir bëgg ko fekk si jël taxi def directement Bakhia bi ma ñëwee comme liggéey mooy boo ñëwee nga def da nga euh, néew bi ànd na ak euh, ku ñaari mbokkal ndey ak baay wala ñett sax yu mbokkal ndey ak baay ak benn yaayam. di ñëw ma ne leen kii nu fekk jot naa kayit yi bi mu ci bi jógee bi jógee dakaar mm, gis na tamit dafa dee naturel la dee euh, donte feebaroon na mais feebar bi garaawtu noonu malaaka mi mu ngi tudd Samba Sow mu ne ay kayitam maanaam ndax amul aw turu nga ko wala nga ko woowee wudu Samba Sow moom ànkay am na turu Pape Sow maanaam ndax amul turu xale boo xam ne daa na ko woowee mel noonu mun ma Alex ma ne ko ah kon day daa mel ne tur wii ñu jot fii ci Bakhina ah, jot nañ tam ndigal ne moom mii kat nañ ko téye bala ñu koo suul kon na ngeen def ndànk ñu gëstu ndaxte am na lu ci ñuul daal jokkoo ak commandant bi bu Ndindi jokkoo ak commandant police pour ñu yëg li xew ma jël ko om ci ma woo ko waxtaan mag ak ji ma ne ko sëñ bi kii kat dañ ak góor jigéen la saraxatan mu commencé na mu xamu ko ñi am néew li ñu ànd ak ñoom ñëpp nag ñëpp laa wax ku ci ne da ngaan deux ans la koy gis ñu naan trois ans ñu naan quatre ans ba ko am na ko tudd ko xam ne ko ko tudd doom nee na moom cinq ans yi gisu ko ci ñu ne ifam yi gisoon xamal nañu xamal na ne amoon na soxna ab tubaab xamal na daal liggéey wàllu yett bant waaye bàyyi woon na yi xawaal gëm nañ ko ba ñim dëkkal ci fi mu dëkkoon suñuy xalaat suñuy suñuy relation ñoom ñooñu biñ ko ñoom jot nañ tamit ne néew bii di fi ñëw Touba borom ñaar tur la ko ñu suñu dubaar mooy luutu yi moom du nga sul Tuuba mooy ñi ñi def ay ak ngóor jigéen ñu ànd ak moom nag ci tiraan ci ndigalu euh, commandant bu Ndindi ñu ànd ak moom compagné ko ba fii mu dem yeneen da koy bu ci ay mbokkam ñu tàggoo ñu ñaar lii lañ def ci liggéey boo xam ne nii ñu ngi ko def tamit ànd ko ak mbooleem ñëpp comme tamit ñun suñu liggéey dafa xaw a dafa xaw a yaatu jokkomal ak suñu suñu longaa mi dénk loo ci Tuuba mën benn liggéey la bi mu paree jokkoo ñi war a jokkoo ñëpp xam nañ li xew défénécation bi tamit yooyu ko ñi ko war yëg yëpp gën nañ ko mu ngay dem jàmm jàmm. waa waajur moom gisuñu ko. waajur moom ñi ko andi na enquête danañ danañ contesté mais xam nga tamit loolu kenn loo kenn ko nangu loolu kenn waaye ñun jox nañ la ay firnde ñoom jox nañ la ay firnde yu leer nañ yoo xam ne nii mun ñu ko weddi ba ñoom seen bi sax da ko ne da ko ne ñoom koo gis ay quatre ans cinq six ans. mënoo koo seere ci man noonu te new bi ñun am na dafa ñu ko fi mu faatoo ñu koy ko andi am na ko leer nañ ñi te kooku jot na ko téléphone dafa daw res man na waral na ko yow si new bi nga yaa ko faj xam nga ci mu léegi léegi lii dafa daw res ñu xam ne kon léegi nag nag am nag mbir mi nag jëru jëru guddal na gën Tuubaa rek mu gën Tuubaa waa ñun de ñu ngi ciy def suñu man suñ suñu tàkk ndax màgg rek kaa bi dalal nañu waaye ñun comme que ne liggéey ci wàllu jàngale ak yeete ñun dalañu dal waaye bu ñu dalee comme nii rek topp comme sës rek ñu génne ko Touba fa la mën a yem ak moom daanaka bu ñu ko daana daana ko yëngu bu ñu ko daana am ñu ne ñu ñu ñu ñëm Touba waaye du ñëw du ñëw boo da ngaan ba timis ba guddi doo gis kenn da mujj ngay néew ba léegi boo gis nga inséré ko xool doo gis kenn waaye bii moom daa tombé moom ne bi nga waxee rek bu ñëwee motu sax trois sept ans ci gàttal lii moo ne woon xabaar bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh dañoo ñëwoon Touba indi fi koor boo xam ne wax dëgg fa yàlla lañ fekk nañ ci loo xam ne la ñu ca wax lañu ñu ca wax wax dëgg yàlla neexu ñu dalal suñu xel ba loolu ba ñu ko waxeet ñay ñay saytu Touba am nañ seen information ba dañ ñoo wàññiwaat loolu la loolu lañ doon seer di ko di ko di ko di ko wax fii mbooloo mi. waaw oh, asalaamaaleykum waaw dañoo indi woon fii benn koor fii Touba ñu ne ñu lañ ñu cee wax de wax dëgg yàlla neexuñu parce que dañoo ñëw ñu ko ji ñu ji jiñ affaire boo xamante ne nii xamuñu ko woon ci moom man nag maay Amar di di nijaayam di di di jabaatam wax dëgg yàlla loolu neexu loolu neexuñu te wax dëgg yàlla ñun xamewuñ ko woon loolu tamit wax dëgg yàlla